ahlan bikum guddik gàmmuk yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam màggal nañu ko ci sénégal alhamdulillahi l'observateur moo ñu ko xamal ba tax fa ko tuddee guddik leer fañ ko màggal ca tiwaawoon ak mbooloo mu bari ak dina bàyyi Niass mbooloo mu bari ak yeneen këru diine yu bari sénégal si di quotidien ne man faay dem tiwaawoon ñoom seen gàmmu ga valeuru islaam ak jàmm moo ca gën fës ca kàddu ya xalifa général ba sëriñ babacar si delluwaat ci njàngalenu lislaam laas yéen kaay na ko faala ci yokkal jëwriñ di dénk wàllu biir réew mi Antoine Diome moom it fa mel ne ab oustaz dafa doon waare ca cérémonie officielle ba fa wax ne am na ñoo xam ne fa ñoo bëgg a wàllu tariqa yi ci réewum Sénégal te loolu état bi du ko seetaan turbine yéen kaay ne Antoine Diome kay fa dànkaafu ñu bëgg a salfaane yi ci Sénégal le quotidien yéen kaay ne gàmmuk Tiwaawoon nga jàmm ak réew a bi ba génn wax ak taskatu xibaar ya moom Aly Ngouille Ndiaye fa tontu njiitëram Macky mi nga xam ne fay dànkaafu ak a tëkku waa APR yi nga xam ne fa ñoo bëgg samp seen dënd laaj réew mi bés bi yéen kaay na ko Aly Ngouille Ndiaye kay xuppaate yooyu njiitëram Macky di def yëgalul ko sax yaram wi fi mu ni fa gën a foncé dëggal boppam ak candidature am bi ah, yaaw seetal fa wax ne man Aly Ngouille Ndiaye jamono ji faay waxtaan ak Boun Abdallah Dionne ngir a <laughs> leer ba yegg ca nàññi ja mooy ne sëriñ Moustapha Sy njiital moustarchidine wal moustarchidaat yi ay kàddoom ci gàmmu gi champ de course yéenekaay yu bëri fa ñoo xëy di ñu ko nettali yaaw fa ngay xool info yéenekaay fa wax na sëriñ Moustapha Sy kàddu yu tàng jir moom la yëkkateeti jëmale ko ci xalifa général des Tidianes njiital Macky Sall ak nguuram fa njëkk a wax ne gis nga wàllu politique man nag wàccaguma woon ci géew bi waaye faa bëgg yéen ñiy toog faa bëgg ngeen jóg waaj préparé dootuñu nangu loo xam ne kenn waratoon ko nangu ci réew mi fa yokk na sama rakk nag ay pexe lépp ngir bolo ko ko mu bañ a bokk ci wata 2024 yi waaye ñoom fa ñoo xamut ne man su ma neexee yóbbuwaale Ousmane Sonko ànd ak moom yéen kaay bi ne hé alliance bu ñu àndee ñoom ñaar fay garaaw de la gën a garaaw nag sëñ Moustapha Sy moo ko wax fa wax ne waa Benno Bokk Yaakaar yi am na ci responsable yu bëri fi mu ni ñëw nañ seet si ma ñii fañ maa xoo téléphone ne yow la déglu fu ma xaw rek ñu topp ma moo tax waa yeewi askan yi bi ñëwee wax ma ne fa ñoo bëgg dem ca xalifa général des Tidianes ziyaara ko ci gàmmu gi man faa leen xaayee faa leen wax ne bu leen dem ndax xalifa général des Tidianes fa yëpp di ko dégg mooy bi ko njiitira Macky Sall ci gàmmu gi fa ne Amadou Ba yow yaay nekk président Sénégal bii di ñëw waa léegi kooku koy wax na fi féete kon yéen lu ngeen fa wuti waaye dégluwuñ ma ñu mujj dem le quotidien yéen a kaay na Serigne Moustapha Sy tamit fa wax ne léeg-léeg Ousmane Sonko fa mu tëdd la la hôpital léeg fa doon wane mel ni ku nekk en commun lépp ngir bañ a dalal lenn ci responsable yeewi askan wi ndax buggutoon wax ak ñoom la mu ñu wax moom l'évidence yéen a kaay mooy Serigne Moustapha Sy mii duggati xam ne ba pare joxe ay xibaar ci na ko sëñ Moustapha na ko lu ne ko fii lu te doo fi mës a gañe ci ay élection les ko yéen a kaay ne faa leen di yootal njiitu jëwri ni Amadou Ba fa yónnee woon ay nag ci gàmmu gi ngir dimbale ko sëñ Moustapha Sy Moustarchidine yi waaye xam nga nu ñu defam Moustarchidine fañ koo delloo ay nagam na ko Amadou Ba jëlee say nag ñun soxlawuñ xam nañ ay nag yuñ gàmmoo <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne Ousmane Sonko mooy candidat bi nga xam ne sénégalais yi fañ koo bëgg tànnal ko seen bopp préparé waaye njiitëram Macky Sall fa bëgg a xañ sénégalais yi Ousmane Sonko ngir mu nekk candidat jiite réew mi du samay kàddu nag Tahirou Sarr moo ko wax dëggal na ñoom ña nga ca gannaaw Sonko te mooy nekk seen candidat laa si a kaay na ko voilà léegi nag faa bëgg ngeen déglu ma képp koo xam ne kandidaa nga fa ngaa war a jóg taxaw xam ne caaxaan faaxee ndax parrainage bi tey ci la yëf yi tàmbali yaaw seetal kuréel gi ñu dénk wàllu wote yi tey ci àjjuma ji ci la ñuy joxe fiche yi nga xam ne ci la ñuy remplir outil parrainage ci askan wi fa ñoo nar a dajale candidat yi wala ña leen fa teewal jox leen ay xibaar ci wàllu fiche yi ni muy tëddee ak nan lañ koy doxalee a kaay ne wuré wa dem na këng jot ndax yëf yi tàmbali na waaye nag mandataire yi nga xam ne ñooy dajaloo tey kuy ñëw fa ngay andiwaale signature ki nga xam ne mooy sa candidat buy wane ne moo la yebal vox populi moom it feelu ko na parrainage bi tàmbali na de waaye fa nar a bëri ay njàqare de candidat yi nag parrainage bi mooy seen examen ngir mën a jàll nekk candidat xam na ñu bëri si ñoom fa ñoo nar a fori neew de duñ bokk ndax parrainage leen koy xañ info yi ne ne Abdourahmane Diouf bu awale moom toll nii parrainage bi mi ngi tàmbali waaye moom fa xam ñaari gàllankoor ak jaaxle yoo xam ne moo nekk ci kanamam yu a lijjanti lu ko mooy du bokk de xam-xam màcc ci wàllu yoon ak parrainage ak mel fa ne njiitaram Macky Sall fa défier ëtt attikaay bu sedd yaaw jëm ci parrainage bi maanaam lañ ko digal faalewul leen moom leneen lay def te bokk na ci ay violation ci ay article enquête yéen a kaay ne guerre ba nag fu ni tàmbali na ca benn bokk yaakaar ndax seen candidat yu bëri ya te moo a kaay na beneen candidat bu bees a ngi nii Birima Mangara fay leeral ci yéen a kaay ba xana moo tax mu samp ndëndam nekk candidat ñeneen ci ay candidat yoo xam ne génn réew mi moom moom lañ bëgg ndax ñàkk xëy bëgg a doole bitim réew tax ñu dugg ci gaal gi turbine yéen a kaay atum ren bi 2023 ñaari junne ak juróomi téeméeru doomu aadama dee nañ ci géej gi wala boog fa ñoo réer mër l'évidence yi ne kaay moom fa xamal mbir mu yéeme yaaw fa ngay xool fa xam ñaari xarit yu doon xuloo ba mu yàgg ñu tàmbalee xeex ñaari xale yu góor leen kenn ka fa mujj rocci paaka jam ko xarit ba mu faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca tey bu Grand Dakar bi ñu ko tegee loxo nag naka lu tax nga rey sa xarit bi mu ne leen hëy famaa bëggoon a rey moo tax man faa ko njëkk a rey